aouzu billahi min asheytaan arajim la hawla wala quwata illa billah alil azim hasbuna allahu wa nihmal wakilu nihmal mawla wa nihma nashir asalaamualeykum wa wa barakatuhu yéen mbokk yi nii seetaan ci réew mi ak ci biti réew fu fi waay manti nekk rek ñu ngi lay nuyu nuyu bi gën a sell tey ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu may nu nu yendu ci jàmm ak salaam te fanaane ko di ziar suñu kilifay diine yi nin ko baaxoo def di ñaanal suñu kilifay àdda yi kenn ku ci nekk rek li ñu la jox pour defar réew mi yal na ci yàlla jàpp ba lépp sotti e, di ñaanal e, ñi nga xam ni aussi dañu feebar e, yal na ñu wér ak jàmm di ñaanal sénégalais yi nga xam ni foo dem ci àdduna bi tabarakalla fekk leen fa te teraanga tax leen a jóg yal na leen yàlla dajale ak ki bunti xéewal te musal leen ngeen ñibbisi ci jàmm ak salaam Eh, mbokk yi ñu ngi ziyaare ñëpp di xam leen ne nag tey dafa am lu dal ci sunu kaw moo di soxna maire Bilo Ka di jur bu soxna Marème Ndiaye di directrice su 2S moo wàññeeku ci fajar di soxna soo xamante ni nag wax dëgg yàlla eh, eh, moom ku baax la woon ci li ñuy dégg ci moom ndax man benn yoon laa ko mas a nuyu waaye soxna maire Bilo mi ngi juddoo dëkk bu ñuy wax Bakel ci wajur wu ñuy wax Bokar Ka nekkoon chef de canton te xam ngeen jamono jooju famille yu mag yi rek ñoo amoon ay chef de canton moom nag mi ngi juddu 1940 génn àdduna euh, tey jii ci fajar incha allahu dinañu ko euh, jébbal boromam levée du corps bi mi ngi am takkusaan di h ci jumaay Omar Foutiyu Taal fa lañ koy jëlee nag incha allahu yóbbu ko yoof denc ko fa. looloo waral sax ma dalal euh, Cheikh Diaby ndax Cheikh moom wax dëgg yàlla bi mu waxtaanee man sànq xaritu meer bi la ku bëggoon maire bi la maire bi it ku ko bëggoon la mais wax na ma ni juróom bi mu wàññi ko moom Cheikh maire bi ñëw na jaale si ko won na ma sax <clears throat> léegi numéro téléphone am ak ci sama wetit it Oustaz Gaye ngi nii toog ndax xam ngeen moom ci ñu yor diine ji ci kër gi la bokk te xam nga dañuy wax naa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun loolu moo tax ñu teg ko fi moom it pour mu euh, xaw a dalal sunu xel ndax fi mu ne mareem boo jokkoog moom téléphone sax mi ngi jooy euh, ndax am na lu ko métti ndax yaay ju baax waaye nag nee naa ko mag du am ndey ak waaw ndax am na yenn âge yooyu boo ko boo ko amee il faut que nag quand même euh, euh, dëgg-dëgg léeg-léeg nga ñàkk say waajur ndax man mii maa ngi ñàkk suma wayjur wu góor 1984 sama yaay 2000 kon xam nga mag du am ndey ak baay. Mhm. kon Cheikh ma jox la nga nuyoo balaa ñuy dugg ci waxtaan wi. Tall maa ngi lay fay. Mhm. di nuyu imam lay Gaye mhm. di nuyu suñu mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan. Euh, taal fi nga daanelee fa lay tàmbale tey nag da di bés boo xam ne mhm. maanaam am nañu lu ñu métti lool mhm. waaw am nañu tiis mhm. duñ ko naqarlu ndaxte boobaa day mel ni gëmatuñu yàlla waaye nag métti nañu nag métti nañu lool ba ñu ngi wax rek ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun maanaam ci borom bi la ñu jógee te ci moom lañuy ñu delluwaat taal ñu ngi la koy jàll di ko jaal imam mm-hmm. di ko jàll sunu directrice général Mariam Ndiaye mm-hmm. ma koy jaal tamit euh, Jéba mm-hmm. rakam la di ko jàll ñëpp famille bi yëpp di ko jàll àdduna bi yàlla def na amoon naa chance xam mère bi ba ñu gëjee gisee def na deux maximum trois mois yàlla def na dañ doon wootante. Mhm. wax dëgg neex yàlla dëgg rek la yàlla bëgg. Mhm. waaye li ma gën a marqué ci moom. Mhm. image bi. balaa maa gën a dugg ci waxtaan bi. maanaam foo foo foo moom rek. dafa am benn benn visage bu radieux. maanaam kanam bu yang bu leer booy gis. xam nga yaa ngi wax sànq ci sa introduction ne. 1940 la judd. 1940 ak 2019 boo ko xoolee. Mhm. doon na 79 ans. Mhm. Mhm. waaye ba nga ko waxee dafa am leen loo xam dafa xaw a sànqami sama lanc. ndax euh, ci leeratul xadar bi maa ngi nemoon Tivaouane. may nuyu sunu papa Malick. le porte-parole du khalife général des Tidjanes. ñi mu toog di waxtaan ci jàkka ci. bay wax waxu Cheikh Al mu ne balaa moo génn àdduna dafa am benn tubaab bu ñëw ne dafa am li ma jaaxal mm-hmm. mu ne ko loolu la mu ne ko pourquoi votre père est toujours jeune mm-hmm. mu ne ko parce que lépp lu yàlla di tere defu ci benn xam na wallaahi ce que mu ne mm-hmm. nit bu dul def ay tere yàlla foo ko fekk day ràññee il te li may wax lu tax ma koy dëggale ci fànn bi saa yu ma ko masaana fekk daa ko fekk mu muuru mm-hmm. muuraay bu mat bu rafet bu rafet mm-hmm. daa ko fekk mu yore kurus gi nag mm-hmm. nekkoon jullit pire parce que loolu laa mën a seede ci moom nekkoon taalibe Cheikh pire kon nag mu mel nii njaboot gu nekk li muy ñaan yàlla moo di ay njabootam suul ko yàlla defal na ko ko ñuy ñaan yàlla fi mu dem yàlla na ko dàqal fii amiin yaa rabbal alamin balaa maa jox imaam dinaa mhm. euh, dina dina dina dina dina jàllewaat bu baax Mariam di ko wax ne ko lu mu gën a jàpp ne ko gën a dolli mhm. parce que côtoyé naa seen yaay mhm. mais da di mère boo xamante ne ku amoon taxawaay la te taxawaay boobu mu amoon téye njaboot gi nag téye nag bu dëgër nag laa la wax tax na ba demam tey mhm. dinañ yëg nag seen demu papa mhm. mais taxawaayu meer bi taxawaayam bu war moo taxoon nag seen papa dem na bu yàgg mhm. mais yëguñu ko woon au fond waaw ndax taxawaayu maire bi mais nag tey na pois boobu nag faw ñu sentir ko moo tax ma leen di gën a ñaaxaat di leen wax ne rek euh, lu ñu ñàkk ñu ñëpp a ko ñàkk dëgg la nitu yàlla bu mag dem na soxna su baax dem na sunu maam dem na xëy na fii ak waxtaan bi ñuy gën a dugg ci kanam. Mhm. ndax yenn yi bëri au fur et à mesure dafay ñëw ndax xam nga l'émotion bu la dabee. waaw waaw. ndaxte tey ba may yeewu yaakaar woon ma yaakaar woon. waaw kay teg mhm. information. Mhm, yenn saa yi wolof mooy xaw a gàtt waaye c'est l'émotion. waaye au fur et à mesure dinañu waxtaan ci yu bëri bëri ndax am na yu bëree bari bari daal yu bëri ma bëgg a bàyyi oustaz. Ah, waaw oustaz euh, Gaye euh, bismillah alhamdulilahi rabbil aalamiina wal aaqibatu lil muttaqiina wala udwaana illaa ala zaalimiin taal ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a di la ziyaare di la wàcce sa wàccuwaay di ziyaare it bu baax suñu soppe suñu sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane eh, di suñu kilifa moom it di ko wàcce wàccuwaayam di wax li nga xamante ni moom la sa soppe ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan wax bu xew-xew yu mel nii masaana am mhm. daan wax naan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mhm. li ko waral mooy dafa ñàkk doomam ju ñuy wax Ibrahim bisu tabaski xale ñeenti at kuy sa baay yonent bi alayhi salaatu wasalaam di waajal julli ji xale bi ñu koy waajal ci sang ak toppatoo pour mu ñëw ànd ak baayam bi ñu paree am na ci boroom xam-xam yi ñu ni gis na baayam comme ni xale bu ne bu sa baay baaxee soo ko gisee ndaw dogaale ko mu daw uti baayam yenent bi jël ko yàlla ni malakal mootu bala mu ko teg ci dënn bi roccil ma ruu xale bi mu tiis torop ba rangooñam tuuru na keroog saxaaba bi ñuy wax Abdurahman ibnu Awfin dafa ni ko keroog yaa ñu ni woon bu ñu amatee ku faatu bu ñu jooy waaye yaa ngi jooy mu ne ko déedéet innal qalba la yaxsan xol bi moo am njàqare mooy li sëñ Cheikh doon wax ni ko rangooñ yi di tuuru waaye nag suñu làmmiñ yi duñ ci wax lu dul yàlla gërëm ni ko nag wa inna ala firaqika ya ibrahima la mahzunun ibrahima sa dem tiis la waaye du naqar jullit yàlla du ko def lu ko naqari mën na def nag lu tiis ci xol keroog loolu la yonent bi wax beneen bi Fatima di doomam ñàkk doomam mu yónnee ni leen nee leen Fatima na muñ neen ko inna lillahi ma axada wa lahu ma aata wa kulli shay'in indahu bi miqdar yàlla jëlul alalu kenn alalam rek la jël alalam rek la jël. Mm-hmm. lu mu jël moo ko moom lu mu fa bàyyi yëpp moo ko moom. bu jëlee dara mm-hmm. la fa des na xam ni ni mu jëlee lii ba ko fi bis dina ñëw jël si ko. mu jël si kon ci loolu rek la jaal. Mm-hmm. di wax ñun ñëpp kàddu googu nit ci yàlla lañu jóge ci la ñuy dellu. di jaal bu baax suñu directrice. Adja Marème Ndiaye. waaye jaali tabarakallahu El Hadj Ibrahim di borom këram. waaye jaal famille bi yëpp ci lii leen dal. lii leen dal nag mooy loo xamante ni fu ne lay dale dama wax bi suñu waajur génne àdduna ma ni suñu famille ñi ma bokkal man leen famille bu spécial amul ci kaw suuf. Mhm. famille bu yàlla ni famille bii moom foo ne laay jël ba mu des ci ñoom amul. amul amul. Mhm. kon famille bu ci nekk. Mhm. lii dafay dugg ak génn. te waxi wolof. sëñ taal yow nga gën ñu dégg wolof bu baax xam nga ni nee naa leen li ma ci gën a wóolu mooy buy jaale nit. su ñëwee bay dem danaan la. yàlla na fi dee gëj. Mm-hmm. waxu la yàlla bu mu fi amati yàlla bu mu fi ñëwati. Ah, dala na fi dee gëj yàlla na fi gëj. Ah. yow loo koy tontu yàlla buñ la ko. gaaw a fay kon ñaar yëpp yéen a ngi xaar yéen a ngi xam ni mbir bi dina ñëwaat. kon loolu tey moo wàcc ci suñu kaw rek. tabarakallah ñu koy jaal bu baax nag euh, soxna Mariam ak njaboot gi yëpp. Mm-hmm. di yaay Bilo. doonoon yaay ju baax comme ni ko sëriñ bi waxee man jotaay bi ñu mujj bokk mooy gàmmu Tiwaawan bii passé ba ne suba la gàmm mu ànd ak ñoon soxna mbari ak fa bi yëpp ñu ñëwoon ziar si keroog ñoo àndandoo sax dem ci ba si tabarakallah ziare sëriñ Habib li ñu xamoon ci moom rek mooy boo ko gisee rek mu lay saf magu diine waaw nit loolu dafa baax ci moom dafa baax. Mhm. nitu diine jullit nga. bu la gisee waay da koy da nga ko waroon loolu la ñu xamoon ci mhm. moom. Mhm. di ko ñaanal nag tey wax fa ni ñu muñ. yàlla mi ko indi woon. te tàggoowul moo ko jël. xam nga su ma nee gudd na fan. ki gàtt xel dana noo gudd fan mooy lan soixante-dix-neuf ans. fekk na yonent bi aleyhi salaatu wa salaam dafa waxoon ni amaaru ummati ma bayna sittina wa sab'i nee sama xeet. li ëpp seen dund Cheikh nee na mu ngi entre soixante ba soixante-dix ans. mu néew na sax ñu koy dépassé. kon boo amee dégg-dégg ci wax yonent boobu bi defe naa ay 65 ans 63 ans 63 ans mm-hmm. muy eh, jalalin moom la dund rek faatu mm-hmm. kon ba muy wax loolu xam na ni moom du romb foofu mm-hmm. kon avant mu yegg 70 ans dem na suñu yaay ji nag am na 79 ans kon wax dëgg yàlla yàlla yàlla yombal léppam waaj ji ñu koy waaj pour jébbal ko boroomam te yàlla na yendoo ci jàmm ak salaam wala yàlla na fanaani ci bàmmeelam ci jàmm ak salaam ñu ngi koy masaw uh, soxna maram ci fajar la ñu ko informé yi comme ni ma la wax rek mu nga dal nag mu nga dal te loolu am solo lool xam ni yàlla ko fi indi woon te ba mu koy indi tàggoo ko buy jëli du tàggoo ndax kullu nafsin zaa'iqatul mawt li mu ëmb dafa bari sëñ Cheikh mm-hmm. dama wax ni ñun ñëpp a ci yem mm-hmm. ku ñu fi woowoon téléphone menacé la de mort mm-hmm. ñu woo la rek taal taal yow xamoo ma waaye dinaa la rey yem foofu ku la ko wax boo xëyee da ngay porter boo demee ci gendarmerie wala police da ngay porter plainte contre x yàlla nag du x du gi du z yàlla la te nee nañu dinañu rey te kenn ñemewu ko porte kon loolu mbiru suñu borom la yàlla na yàlla may xolu muñ ci lii xew mm-hmm. yàlla yàlla dëfal ñu te ñu xam ni nii rek la mm-hmm. kenn du fi des mm-hmm. waqat ba nee na maatal mudaawi wal mudaawaa walladi jalabat dawaa wal baaiu wal mushtari nee na ki feebar faatu na docteur bi doon faje faatu na ki composé woon garab gi faatu na pharmacien ba toog ci pharmacien bi di jaay garab faatu na ka woon garab faatu na kon ku fi des sëñ taal ñun mënuñu waaw xam nga léeg-léeg sax euh, Cheikh. nga ñàkk sa way jur mais da ngay am mbégte tuuti. li tax ngay am mbégte man de personnellement. sama yaay way jur wu jigéen. bi mu demee wéetal na ma. mais amoon naa tuuti nag mbégte ak sant yàlla. ndax bu fekkee da nga am yaay mu nekk ci lu baax nga fekke ko ci. nga gis muy def lu baax rek xam nga lu baax mu ngi gën a baaxee boo dee wuju sa borom. parce que yàlla moo gën a yéwén ñëpp. ëpp ëppale ñëpp te moo moom rek ay fay. bu say jur nekkee ci lu baax ndax man fu ma nuyoo benn nit léeg-léeg da damay damay man damay wax ni maree suma xarit mm-hmm. mais damay dajeek euh, ay mbokkam wala ñu leen xam bu yàgg mm-hmm. mais daf ma naan mbaax gi ngay wax ci mareem yaay ma ko gën fuuf mm-hmm. di ma nettali ay affaire maire bi ku baaxoon la ku amoon diine la ku am juddu la nit la koo xam ne ku mën a defar la xam nga mareem ñu ngi ko tuddee wujjam wujju wujju maire bi mooy turandoo mareem Ndiaye wax nga dëgg te loolu xam nga rafetal la ndax jur sa doom ñu tudde ko ki ngay wujjeel loolu lu lu rëy rëy la d'ailleurs ci ci nit ñu baax ñi rek nga koy gisee ndax am na ñoo xam ne ñeme wunoo jël seen doom di ko tuddee euh, di ko seen seen soxna am doom ñu koy tuddee wujj wa mm-hmm. waaye loolu foo ko gis rek mooy am na ci ñu ñu baax ñu ñu mën a fonk ay diggante ñuy téye Cheikh nag yow xam naa ne émotion bi xaw na la jàpp sax mm-hmm. parce que xibaar bi bett na la te maire bi dëgg-dëgg yow li nga ci xam nun xamuñu ko ci <laughs> mais euh, ñàkk way jur wu baax euh, baax na de Cheikh li nga wax dëgg tal mm-hmm. euh, dëgg la mm-hmm. ndaxte xam nga dañuy faral di wax damay faral dégg sa ñoom imam di ko ne ku ñuy jooyle la waratoo jooy mm-hmm. ku ñuy jooy la waratoo jooy waratoo jooy te loolu lu koy témoigner moom moo di maanaam nga am ku baax ku fi jóge dëgg la xam nga nee naa la sànq ci or antenne la yàlla def na dama doon jokkoo moom. Mhm. ndax amoon naa téléphone mhm. suñu gisee bu mujj bi lu ko waraloon moom moo di benn gàmmu boo xamante ne amal nañ ko fële wala amaloon nañ ko fële ca Bakel. Mhm. Euh, Mariam sax su ma sedda la. ndax yaay ji boo waxee mu ne ma déedéet tegal Mariam ne. man ak yow la léegi moo tax Mariam su waxee mu ne ma yow ak sa jabar la bul ma ci dugal léegi waxal ak jaabi seen nga régler ak moom sa affaire seen affaire la <laughs> yàlla xam na ko lu mu soxla mm-hmm. man lay woo mm-hmm. man tam lu ma ci war a taxaw yëpp ma def ko ci su paree ma rendre compte tubaab bi naan acquis de droit mm-hmm. ba ci gàmmu bii paase nga xamante ne amaloon nañ ko fële ca Bakel ba keroog ndeysaan ba ma fay jógee maa ngi wax ne ko waa léegi nag kañ laay ñëw na nga tegal sa chéri bi parce que taatu mango bii ma gis moom. Mhm. faw ma ñëw toog fi na ñu ataaya waxtaan. voilà mhm. yàlla xam na ko. Mhm. Euh, soo soo gisee may nettali loolu. c'est juste rek maanaam pour wax un peu bi nga xam ne amoon naa ko ak moom. wala amoon nañ ko moom ak ñi nga xamante ne ñu ngi liggéey fii. sama wéjur bu góor génn na àdduna. en 2013. malgré feebaram ak lu ñu gisee après elle a tenu keroog jël portable am. woo Marine ne ko passe ma Cheikh. faw ma jàlle ko ndax Cheikh bu dul dara sama doom la suma sët la mhm. te xale bu ma naw la mhm. te fu ñu gisee dinañuy toog mu waxtaan mhm. mu ne ma doom mu ne ma mu ne ma bàyyil xel ci dégg nga ma ne ko loolan la mu ne ma bul di tooñ allahu mu ne bu leen tooñ de ma ne ko incha allah dinaa ci bàyyi xel baax mu ne ndax dangeen nekk ci métier bu garaw boo xamante ni bu leen mos a sos est lu ngeen di wax rek na leen wóor est-ce mm-hmm. te boo xoolee loolu di nga ko fekk dans le journalisme. ah loolu sax mooy journalisme bi. ndax avant de donner une information. il faut la vérifier. oui. Mm-hmm. xëy na ma profité ibi ci benn parenthèse ndax fan yii passé dégg ngeen rek ci télé bi ñu naan xaw ma El Hadj Ndiaye wax ne bu ñu jëlee ci kuñ naan Clédor Sène. Mm-hmm. baabu woo ma ay une heure du matin samedi ma ne ko baabu yow ma wax waxu kasaw kasaw. baabu une heure du matin tal naa leneen. wax dëgg yàlla. boo xamul élage dootoo ko xam 2007 ba léegi maa ngi ci loxoom c'est pas du genre de élage su amee la da la koy wax à qui de droit ci télé laa toog di wax en direct su amul dinañ ne ma li nga wax amut dëgg yàlla ma ne ko ñii ay waxu kasaw kasaw la ñëw du ma leen sax tontu mm-hmm. yàlla xam na ko kasaw kasaw yi nag sëñ bi wax ji bari na kasaw mais ñaaw na <laughs> léegi daal moom def ko benn tintamarre boo xamante ne kenn xamul lan la dimanche ak altine muy affaire bu ñaaw boo xamante ne xabaar boo xëy mais kenn xamul fu mu jógee. kenn xamul fu mu jógee dëgg la kenn xibaar bu jógee. mais loolu ba kañ ah oustaz ba kañ moom daf ñu mos a ñaax ci loolu ne bu leen mos sos bu leen wax loo xamante ne wóoru leen wóoru te bu leen xëccoo it ne bu xëccoo de toog leen fi ngeen toog soyez constant te ngeen def lu ngeen def. waaye li ma munti wax damay jàpp ne téere la. ndax lu tax mu wax loolu damay faral di déglu waxtaanu mag ñi nag. dama koy déglu bu baax. waaw mag boo dégg fii presque dinaa dem ci moom déglu ko lu ma mën a root ci moom wala taataan ci moom ma def ko. parce que da ngay faral dégg ñu ne xale du du du muusi atam. Mhm. leen déedéet daa fekk boobu xale bi demul ci ay mag yoo xamante ne ëpp nañu atam. dëgg la. Mm-hmm. ku lëngoog ñu ëpp say at nga nga muus lu ëpp say at. dëgg la dëgg la. Mm-hmm. ndax ustaas mii jàkkaarloo man. Mm-hmm. fekke na loo xam ne fekkewu ma ko. su ma buggee nag mu nettali ma lu mu fekke mhm. faw ma dem ci oustaz waxtaan ak moom. effectivement waaye su ma doyloo su ma mhm. ak yow mii. Mhm. kon li ngeen fekkee du ngeen ma ko wax. dëgg te kon boobu du ko am. mais nag loolu yarak ak teggi na koy maye. <laughs> waaw ba tey ñu taataanee ko ci mag ñi. <laughs> yar ak teggin ak conseil am. boo demee ci mag ñi yóbbaale yar ak teggin moom lu ñu xam dinañ la ko xam dëgg la gis nga ba mu ma waxee yooyu. maa ngi lay wax sànq ci waxtaan ne la laylatul xadar bi demoon naa Tiwaawan damay déglu lu bëri Pape Malick mhm. mu ne Serigne Cheikh daawoon na ko wax ne ko mbaa doo tooñ mhm. mbaa doo tooñ mu ne ko sañuma ko mhm. sama xel nu til ci lu maire bi waxoon mu ne ko mbaa du ci lu bi waxoon ne ko mbaa du ngeen rëy rëylu mu ne ko je ne suis pas de ce mu ne ndax nit ku diiñ du def yooyu benn. boo diiñee imam. Mm-hmm. Mm-hmm. yooyu doo ci def benn. mu doon kon su ma nee maanaam koo xam ne tey euh, ñàkk naa confident waaye ñàkk naa xarit. Mm-hmm. ngeen war a gëm lu tax parce que. ay leçons àdduna la lay jox. te yooyu c'est marquant. non c'est très marquant. très marquant euh, lu ñu mën def rek mooy ñaanal ko yàlla fi mu dem. yàlla na ko dàqal fii. amiin yaa rabbal aalamiin. yàlla na ko yàlla xare àjjana. Mm-hmm. yàlla ko yàlla ter ci barzaxu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla wane la ak i waajuram amiin amiin wane la ko ak i sëriñam amiin yaa rabbal aalamiin yàlla ko ko mustafa sallallahu alayhi mm-hmm. kon uh, ñu jox la kàddu gi macha allah mm-hmm. taal defe naa ni kàddu yi nga xamante ni suñu mbokk suñu cheikh génne na ko mu jóge ci maire bi. Mhm. def na lépp li des ci waxtaan. Ah, waaw am njàngale dëgg la. lu am solo lu mm, am solo. parce que mag mu toll noonu. Mm. mag day am sagesse bu dee mag mu baax. waaw kay. ndax mag mu bon baaxul ci réew. waaw léeg-léeg ñu ne mag baax na mag mag baax na ci réew ma ne xanaa mu baax. ok ah, <laughs> kon nag dégg ngeen waxi wolof yu am solo yooyu mu wax mm. du mag a baax ci réew. waaye mag mu baax moo baax ci réew waaw kay. kon bu xoolee sëtam bi. Mm-hmm. jege yoog moom lool. Mm-hmm. ni ko mbaa du ngeen tooñ. surtout ci métier bii ñu. Mhm. dafa am solo dafa am solo parce que. pour dëggal loolu alquran dafa wax ni yaa ayyuha alladina amanu in jaakum fasiqun bi nabain fa tabayyanu an tusibu qawman bi jahala fa tusbihu ala ma faaltum nadimin mhm. du lu ñu leen indil information rek ngeen séddale ko mhm. nee bu leen indilatee xibaar gëstu leen ba mu leer ndax bu ngeen ko deful li ngeen wax ba pare mu jural leen réccu naan man kat damaa foogoo ni ki ma wax laa wóolu <laughs> loolu doyut doyut doyut kon loolu la ko wax ni ko mbaa du ngeen tooñ mm-hmm, mm-hmm. ndax métier mi ngeen yor dafa doy waar mm-hmm. kon ndekete loolu dalay lay wan ni la kër gu mel ni deses boo gisee toujours li fiy génne di doon lu wér ndekete am na mag ñu nekkoon ci ginnaaw di wax xale yi loolu feeñ na. te c'est très important benn ngi ah, kaddu gi suñu yaay billoo bii. mbaa du ngeen tooñ mbaa du ngeen tooñ. ndax seen mbaa ngeen wax lu leen wóoru. voilà muy ñaareel ba ñetteel bi mu ko mbaa du ngeen xëccoo. yàlla ne wala tanaza'u fa tafshalu. bu leen di xëccoo bu leen di xulloo ndax boobaa di ngeen di échoué. Mm-hmm. yàlla loolu la wax. xam nga lépp ngi ci alxuraan mu ngi noonu kon kon bu leen di xëccoo te mm-hmm. bu leen di xulloo. Mm-hmm. kon nga gis ni suñu yaay ji loolu bokk na ci li mu doon def. te boo xoolee damay wax toujours ni soxna Marine ni muy doxale boo ko seetlu woon te am jàngat di nga xam ne am na mag mu koy dee dëgg la soxna Marème Ndiaye ñu yee salaat njaalam jaal koy nag sëtam yëpp nag ñoon Abdoul ñoon Sala sànq dama taseeg soxna Sala fii ndeysaan kàddu sax mënu koo génne nga xam ni xol bi fees na waaye ñëpp a ko yëg ci suba bi may woo dàbba maa ko jox information bi waaye baatu non wax na ko lu ëpp quinze fois ci diggante bi ñuy wax te waxuñu lu mat deux minutes. non sama mère bi. sama xarit bi non loolu la dàbba di wax ba bi may coupé kon nga xamante ni kon. Mhm. mère bi amoon na relation yeneen yu bokkul ak ni ñii kat dañuy liggéey ci kër goo xamante ni sama goro ak sama njaboot ñoo fa mhm. kon jàppe woon na ñi fi nekk ni mu jàppe Abdul ni Abdul sama sët mhm. Sala sama sët la. noonu la jàppe woon Cheikh noonu la jàppe woon Dab la jàppe ñëpp. te kàddu gi wane na ko. kon xam nga ni boo déggee lu mel ni Cheikh. kàddu yi muy wax. ni mu amee yar toujours ni mu amee teggin. du wax mukk ba ñu ni acam nga xam ni kon nekkati daan na dégg déglu mag ñi. kon wax dëgg yàlla suñu yaay jooju. loolu rek ñaari kàddu yooyu mu dénkaane woon. mu doon feuille de ci mel ku mel ni Cheikh. ak ku nite. loolu rek bu ko yàlla fayee kenn xamul nu mu toll. te lu rëy la waaw. xam nga maanaam euh, Cheikh dama ko koy wax toujours. Mhm. moom mii dama koy wax toujours ni ko man. bu ma sañoon euh, su may def fii émission ci kër gi yow laay toogal. xam nga lu ko waral. Mhm. parce que man du ko jóg ma naw la. Mhm. man yàlla may na ma fulla joo xam ne du ma naw lu nawuwul. Mhm. du may it déglu ku matut a déglu. surtout moom euh, ndekete dafa am euh, mag ñu muy waxal. parce que mag ñi boo dee wax ak ñoom. Mhm. dañ lay far def mag. dëgg ba dootoo def yëfi gone. Mhm. ndax euh, dañuy dañuy wax toujours naan am naa benn góor bu bari woon xam-xam bu ñuy wax Baye Bassirou Seye. Mhm. danaan wax naan at mu ne ngay gone man mënuma koo xam. maanaam at mu ne rek ngay gone moom nee na mënut a dégg loolu. te gone bu bëggee avancer day dajeek maire yu mel ni maire Bilo wala baay yu mel ni baay boobu. bu ko defee ñu di la wax. ndekete loolu ñu lay wax nag mooy refléter ci saw doxin. parce que koo fi gis mu xam nga wolof yi dañuy dañuy lépp sax naan la suuf bu sutaatee dañ koo jal suuf bu sutaatee dañ koo jal mooy kuy joti ndimbal te ndimbal du ndimbal lu ñu la jox rek nga def ci sa poche. Mm-hmm. ndimbal mooy ku la wax loo parce que lo maire bi lim leen wax ni leçon la bopp kuy jàng journalisme war nga koo war nga koo mokkal. mbaa doo wax lu la leeru parce que ñaar yooyu mooy journalisme mm-hmm. waaye fii nu toll surtout nag maire bi li mu wax dafa nekk d'actualité mm-hmm. ndax léegi euh, xabaar yomb naa joxe yomb naa siiwal waaye yi ci gën a bari ay kàccee cay ne te bala nga koy weddi wala kooka di ko weddi fekk jàll na ba ñëpp jot nañ ci mm-hmm. donc maire bi loolu leçon boobu mu joxe woon day wone moom digganteem ak boromam parce que lim la wax yépp ci yàlla la jëm mbaa doo tooñ parce que tooñ ki koy ki koy réglé ñëpp ki nga tooñ mooy tabarak wa taala mbaa doo wax lu la leerul parce que boo kàccee yaag yàlla la kon maire bi li mu doon wax yëpp mooy rek mi ngi xalaat boromam boromam boobu mu doon xalaat nag ba di digal sax nit ñi xam nga ki la naan bul tooñ moom génne na ca boppam moom du tooñ ki la naan waxal lu la leer moom ma nga ca wax lu ko leer kon loolu yëpp mooy jege gu mu jege woon yàlla kon yàlla nag ko yàlla fay ñuy wax rek soxna Marème ni ko eh, eh, am ndey ju baax daal mu dund soixante-dix-neuf ans. Mm. parce que jamono jii sax est-ce que am fi soixante-dix-neuf ans yombati na. <laughs> parce que loolu loolu il faut nit ñi di ko xalaat ah. mm. parce que temps yi da ngay dégg ñu naan la euh, gaañu na ci malaise nangam nangam soixante-trois ans. ñi fi ëpp fan soixante-cinq ans soixante-dix ans. donc mm. soixante yonent bi ëpp duñ ñi ëpp ci nit ñi duñu weesu loolu. duñu boo demee ba am soixante-dix-neuf ans. Eh, mais kooku alhamdulilah. yal na yàlla yal na dajeeg yërmaane suñu borom parce que nag cat dina juutu nu sax ci bàmmeela ah. yàlla bu ko fa cat jiitu. amiin waaw kon euh, euh, sëriñ Cheikh Acha bisimilah. waaw jërëjëf mhm. Tall gis nga euh, dafa am wax ju am solo bi nga wax. Mhm. yaa ngi koy wax sànq ci mbirum journalisme. Mhm. xam nga lu tax man mag ñi neex ma. parce que mag ñi dafa am benn sens de l'écoute bu ñu am. dafa am benn dégg-dégg bu ñu am. Mhm, mhm. te nit nag soo amul dégg-dégg. Mhm. doo dem te surtout métier bii ñu nekk. xam nga dama koy faral di wax ma ne suñu métier bi dañuy faral di la wax ne boo demee école. ne la juróomi laaj yi. faw foo munti toll. dee koy laaj sa bopp. maanaam kii. quoi quand comment où. kii kan la. quoi lan la. comment naka la. quand kañ la. où fan la. yooyu boo ko dul laaj sa bopp ah, perpétuellement da ngay def toujours ay mais ci ay tuuxi dund rek ngay <laughs> dëkk da ngay dund <laughs> te xam nga imam mu ngi koy wax mm-hmm. mu ne mag du yàlla waaye yàgg na ak yàlla mm-hmm. Mm-hmm. ma mos a dégg ci benn góor bu neex wax ne fu jàmm xëy yendu fa mag a xam lu mu waxut waaw mag mu xam lu mu waxut a fa toog <laughs> waaye bu dee mag xam wax ko ah. jamono tas. kon dëkk ba tas. dëkk ba tas. moo tax nga wax benn wax bu am solo. Mhm. nga ne nekk mag am na solo. Mhm. waaye nekk mag ju baax am solo. exactement. Mhm. yal nañ yàlla musal ci mag bu dëng. am yal nañu ci yàlla musal. musiba la musiba mu bon sax. musiba la. <laughs> walaay wax nga dëgg. kon taal. Euh, waxtaan bi dama cee sawar. waaw parce que da di waxtaan boo xamante ne waxtaan bu am solo la. gis nga damay faral di waxtaan ak euh, souvent yenn kilifa yi ci réew mi. Mhm. ba ci ndakaaru njaay dañuy waxtaan. Mhm. xam nga xam nga xam nga xam nga grande mosquée. Mhm. def nga fa sax bu yàggul benn waxtaan. ak affaire ibilaal bi yàggul sax ba nga ko fa defee. est-ce que xam nga ne taal foofu ab cimetière la woon. cimetière la woon waaw. cimetière la hmm. <coughs> def naa émission ñu wax ma ko ci sax. ab cimetière la woon grande mosquée. yàlla xam na ko. wallaahi amoon na dex ci côté bi yëpp ah. amoon na fa. xalaatoon nañ ko feneen sax mais foofu lañ ko mujjoon a def. Mhm, mhm. ba tey ci mag ñi may waxtaan ndax comme joxuma autorisation ma wax turam. Mhm. mais xëy na waxtaan bi moom moo ko. moo ko moo ko moo moo ko provoqué. ñii waxtaan ba ba ñuy waxtaan ci euh, euh, cimetière bi ñuy wax Bétoir. Soumbédioune. mu ne ma est-ce que xam nga le projet de méridien. le méridien président tey mu nekk King Fahd Palace. ma ne ah, mu ne ma foofu lañ la ko sengoor buggoon njëkk a def. ma ne ko ah mu ne ma waaw. Mhm. waaye dafa am lu tax mu dindi ko foofu. Mhm. ma ne ko loolan la. Mhm. mu ne mag yu fa tëdd ci mag ñu baax ña. dafa am ñu feeñu mag yi ne Senghor. ne ko bës bu rasé cimetière bi Ndakaaru dana doon dóom. <laughs> Senghor génn ci ba mu set wecc. loolu lan lañ ci mën a jàng. moo dina dëgër bopp baaxul. te mag ñi dañuy faral dox ne dëgër bopp am na fu mu baax waaye am na fa xam ne baaxu fa. Mm-hmm. fu mu gën fu bari sax baaxu. fu bari baaxu. boo essayé benn ñaar ñetti baaxul bàyyi. bàyyi nee nañ benn xëy na erreur la. Mm-hmm. ñaar xëy na nee nañ jig jigéen la waaye ñetteel tayef la. tayef la. Mm-hmm. gis nga imam dafa am benn uh, ñetti ñetti waxtaan yu ma marqué te Alaaji def ko. ñetti waxtaan. benn bi mu ngi ko def uh, au lendemain de l'éclatement de la fédération entre le Sénégal et la Mali. et le Mali. yàlla def mu dem fële ca Kidira def fa benn waxtaan pour pour juboo gi am parce que éclatement bi indi woon na tuuti fision absolument beneen bi mu ngi ko def euh, ci 1968 gannaaw ba Lamine Lamine Gueye génne àdduna jërëjëf mm-hmm. beneen bi mu ngi ko def ci zawiya bi fii en 1992 mm-hmm. waaye ba ma ca bëgg a wax bii la mm-hmm. mooy bu mu def au lendemain des années 60. mu toog ci zawiya ba ca Tiwaawan ku dem ci internet bi di nga fekk lii ma lay wax. wala nga dem ci rajo bu ñu wax Asfiyahi di nga dégg boo leen ko laajee daañu la tegal waxtaan. mu wax wax ju jaaxal nag. mu ne ma mu ne réew boo xam ne. alal bariwu fa. xam-xam bariwu fa. bu la neexee nga ne euh, yenn am na yenn richesse sax nu ñu koy waxate yooyu bariwu fa koom-koom waaw kay bariwu fa mm-hmm. Mm-hmm. te nit ñi foo leen fekk mm-hmm. ñu ngi jël lu ñaaw di ko teg ci kaw deru nit rawatina ci ay entreprise di fexe di jaxase nit ki ba maanaam am problème ba ñu dàq ko foofu mu ne réew tànk mu ngi ci situation bi ni mel du mos a avancé boobu keroog ba mu ko waxee en 1904 maa ngi ko déglu waxtaan bi suma papa mu ngi génn na àdduna mhm. suma yaay fekke na ko ñoom ñaar ñoo nekkoon mhm. wallahi keroog ba ma déggee wax ji alaajab wax ko dama yuuxu dama ne allahu akbar mhm. te bu mu koy wax seete au début des années soixante <laughs> mel ni tey juste après les indépendances wax waliw du du réer du réer mu ne tant que Sénégal mu ngi ci position bi du avancé mu ah kon de war na nañoo seetaat toogaay bi nañu xoolaat suñu bopp bu baax a baax a baax kii fi jógee bu ko neexoon mu ne wax nga ko sànq sama doom mooy sëy ak ki moom yëfi wala ñoom ñoom moom yëfi xale bi dama lu ma seex ak moom moo dina dafay liggéey foofu jeex na. Mm-hmm. mais dalaa boole ci njaboot gi. la marque ci boole ma ci njaboot gi. Mm-hmm. ba pare di ma conseiller saa su nekk. la muy wax Marème rek la lay wax. su ma gisee lu ma mm-hmm. neexul ma wax. mu ne ma du nii nii ak nii la. waaw defee nii ne nga ni mu ne ma nongoo nga toppal ci lii. wallaay defee ko nii doxalee ko nii. te yéene kenn lu bon. te bul def kenn lu bon. moo tax imaam dina la ko dina la ko firil. Mhm. Mhm. imaam sax bëgg naa ko. non dina la ko firil fa laa fa laa koy joxee kàddu gi. Mhm. dana la ko firil gis nga. da ngay faral ñu ne montre yu bokk heure. ñoo bokk heure jërëjëf. dafa am fu ruy di tappe fu gis fu ñuy gisee. foo xam ne yow fekkee fa kii fekkee ko mais imaam dina ko wax. dina ko wax c'est important. moo tax. Euh, yàlla na ñu yàlla fayal mag amiin amiin imaam kontaan nañu sa waxtaan mais imaam koor gi taxaw nga taxaw gu rafet bu ko remercier bu léegi li ma la bëgg a laaj sax parce man des fois dama koy wax sax ci émission yi may def parce que yu baree bare dama cee parce que nag euh, boo yàggee àdduna tuuti tey xool di gis bu yàggee dina am loo xam mm-hmm. damaa gis ñu bari ci goney réew mi am lu leen tënk te du feebar du du jàngoro du du dara mais la leen tënk mooy ñàkk a fonk gu fonk seen yari wayjur mhm. ñu baree baree bari Sénégal tardé nañu ndax ñàkk fonk seen yari wayjur mhm. ma bëggoon euh, ñu profitoo ci jataay bi rek pour nga waxal ma xale yi ban taxawaay la doom war a am ci ndeyam ak baayam ndax am na fu yàlla waxee ci alxuraan ni su ngeen ma jaamoo ba noppi mhm. teg leen ci seen yaari wayjur ma di la interpeller foofu macha allah ñu rafetluwaat bu baax jotaay bi ak kàddu yi nga xamante ni mu ngi fi jóg boobu ba léegi yal na yàlla fayal ñu leen yéen bokk ak yéen plateau dafay am solo damay wax ni mm-hmm. gis nga taal mm-hmm. bari na taxawaay bu nit di am mm-hmm. ñàkk xam ni bis bu mel ni bii wàcc suñu wajur mu koy xaar rek moo ko waral dafa am lu may wax yóbbalu suba yu may def moom la sëñ Cheikh doon wax naan ma maa ngi koy jot lu matul ñetti fan dama ci yónnee benn yóbbal boo xamante ni dama ci tëral dañ ci tëral benn néew. Mm-hmm. am kàddu yu ñu wax. Mm-hmm. gaa yu bari woo ma ne bul xëyit di ñu yónnee ay néew. <laughs> loolu lañ ma wax nga xam ne ñun ñu ragale dee. waaye kàddu ga man leen du jëmmi néew bi ñu tëral moo am solo mais contenu bi ngeen di bàyyi. effectivement waa ji dafa ni. Mm-hmm. defal lu la neex. feccal fowal defal lu la neex. toogal di sosal nit ñi di def lu la neex di yàq deru nit ñi di rambaaj di jaxase. di yàq gor ñi. dina defal loolu lépp waaye à la fin comme kii ñu tëral rek ngay mujj loolu mooy bërëb bërëb nem rek rek rek rek kon nag loolu dafa jar a bàyyi mm-hmm. loolu mooy ndaw ñi nga laaj mm-hmm. yàlla mm-hmm. xam gi mu xam valeur wu wayjur moo tax mu ne wa qadaa rabbuka allaa taabudu illaa iyaahu waaye wabil walidayni ihsaanan boo demee ci na yi dañ lay wax ni la boo nee wa qadaa rabbuka yàlla li mu tëral te bëgg ko mooy bu ñu jaamu ku moom wabil waalidayni ihsan boo jëlee wabi noonu rek. Mhm. fii firee ko day mel ni e boo xam ne conjonction de coordination la. Mhm. cest day mel ni danga war a jaamu way jur comme ni ngay jaamu yàlla moo tax mu ne la doon boo nee wabi rek da nga naan wa ihsanan bil waalidayni mhm. na nanga rafetal jëmale ci way jur. pour dëggalal la loolu. dama wax ni lépp looy defal sa way jur ba koy ndaw moom defaloon na la ko te di ñaan nga yàgg fi. te damay wax ni way jur kenn du moom. way rek. mooy tiim doomam naan ko saa yu ma fi jógee na ngeen def lii ak lii ak ah, lii ku dul sa way jur lu mu lu mu la mag mag mag mag ñaanul nag wax dëgg yàlla <laughs> nga sool ko <laughs> déedéet waaw moom loolu moom dafa war a leer ci bopp ñëpp lu mu la mag mag ñaanul yàlla mukk nga njëkk ko mu mu nga njëkk laa faatu mhm. kon way jur moo mel noonu mhm. kon way jur kenn du ko fawe ndax benn waay dafa ñëw ci benn saxaaba ni ko man dex naa sama way jur defal naa ko lépp maa koy sang maa koy jox mu lekk maa koy jox mu naan bi muy aj sax dama koo tëngoon mënu ko yow defaloo goo ko dara ndax yi nga koy defal yëpp yaa ngi koy defal waaye di ñaan yàlla bis mu faatu nga jébbal ko boroomam mhm. moom nag dala ko doon defal di ñaan yàlla bis nga màgg ba mu xëy moom faatu yow nga jébbal ko boroomam est kon foofu yéen wuti mënatoo mënatoo ko yàlla nag ni bu ñu jëmee ba jël benn age mën nañu yor comportement boo xamul woon ci ndey ak baay imma yeblu xan naa indakal kibar bu âge dikkee ci ñoom mën nañu commencé am nervosité mën nañu naqari deret mën nañu yor comportement yoodul comprendre moo xam kenn ci ñoom wala ñoom ñaan ñëpp waaye li ma lay wax mooy falaa taqul lahuma uffin bul gedd bul mer bul découragé bul tàyyi ndax kat yow da nga ko doon def ak say caprice en tant que liir ñoom ñu gérer la ba nga màgg. Mhm. kon war nga leen a mën a muñal loolu. non boo boo xoolee sax liir fi muy jaar ak ndey kon nga war a régler lépp lépp lañ mën wax kon nga xam ne <laughs> garaw na. beneen bi aussi damay wax toujours ni. Mhm. way jur du mhm. caaxaan. du caaxaan de. du caaxaan euh, imaamu Shafii borom xam-xam bu ràññeeku la doon borom ngir ni ngay déggee ngiru imaam Malik ngiru imaam Shafii dafa am ñu ko sant conférence. nee na bi muy dem bay waajal pour dem. yaay ji ni ko Shaafi ay yaay da génn mun ko mun ko man de sama tànk bi moo doon xasan. mu toog nekk ci di woog raayal yaay ji tànk bi. ba mujjul dem ca conférence bi. ñoo ñu ñëw ci moom ni ko yow de wax dëgg yàlla bett nga ñu. jox ñu sa kàddu ba ñu préparé di xaar ñëwoo. sàmmoo sa kàddu. mu ni leen may baal leen ma bi may wàcc. li ma taxoon di ñëw ci yéen mooy ut àjjana ci yéen. te yàlla dafa ne moon àjjana mu ngi ci sama suufu tànku yaay. bi ma demee nag bay war a ut si àjjana ci yéen boo xamante ni wóoruma ndax dinaa ci jot mhm. te àjjana bii leer na mhm. mooy damay waaj a génn sama yaay nii tànkam day xasan mhm. ma ni man lu ma demee di uti àjjana te àjjanaa ngi naa ko kay raayal ko tànk ba mu kontaan gars yi ni ko lii rek doy na conférence ba ñu waroon a def dëgg la lii rek doy na waaw suñu Cheikh kon nag euh, ñu jox la nga tàggatoo rek waaw xanaa tàggatoo bi euh, dañuy wax rek ne maanaam ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi lay gërëm taal. Mm-hmm. baax ñu ngi lay gërëm bu baax ci ci ci waxtaan yi ngee def am na solo. Mm-hmm. xam nga man dama bëgg histoire. Mm-hmm. xëy na du ñàkk daañu def ay émissions yoo xam ne dañ waxtaan ci histoire yu bari bari. ak bëgg jikko yi c'est important. c'est très important très important. imam dama koy dama koy dama koy masawu coono. di ko ñaan nag ne ko loo jàpp rek. gën koo téye. ndax ñett yi lay daanelee imam. imam boo xoolee tey la téere yi gën a bari. waaye tey la nit ñi gën a dëng. tey la jumaa yi it gën a bareeg jàkka yee. Mhm. lu ne lu ne. waaye mbon ngi moom mu ngoog daal. imaam tey la tey la yëre yi gën a bari. Mhm. waaye terewul tey la askan wi gën a rafle. Mhm. imaam tey la lekk bi gën a bari. mais tey la gën a bon. garab yi tey lañ gën a bari. waaw kay wax ju salaa doon seet. waaye terewul tey la nit ñi gën a feebar imaam. kon ana lan mooy problème bi. faaw ñu xoolaat ko. problème bi bu ñu xoolee ba ci biir. lu dara rek lu dul jikko yi. Mhm. te kooku ci seen responsabilité la nekk. yéen a ciy wax. yi nañ ciy daj lu nekk waaye maa ngi leen di ko ñaan bu leen ton bu leen tàyyi bu leen bàyyi li ngeen def ci weeru koor gi fa tabaarakallah rafet na macha allah di leen ñaanal yal na leen yàlla may ngeen fekk ay ati ati ati at ñi fi liggéey ci télé bi ñoom tam yal na leen yàlla jàppale ñu fekk ay ati ati ati at maam ji dem fi mu dem yal na ko dàqal fii yal na ko dàqal fii te mu dëddoog jàmm ak njaboot gi kontaan naa lool seq ak yéen waxtaan bi mm-hmm. euh, xëy na bëggoon naa ko ci yeneen occasion pour gërëm leen remercier leen rafetlu liggéey bu ngeen di def nag mm-hmm. yéen ustaas yi ci kër gi mm-hmm. Mm-hmm. waaye nii la ko yàlla dogalee kon dañ koy nangu kon taal yow tam lay gërëm di la sant di la jaalewaat li ñu bokk di la wax jërëjëf jërëjëf waaw ustaas jox la nga macha allah ginnaaw kontaan mm, wax dëgg yàlla damay jeexale benn xadis bu seen soppe bi wax yonente bi alayhi salaatu wa salaam dafa wax ni ish ma chita fa innaka mayitu wax bi man chita fa innaka mufaariquhu wa amal ma chita fa innaka majziyun bi nee na dundal lu la neex bis dina xëy nga faatu allahu akbar nee na loolu nañ ko xam nee na bëggal ku la neex bis dina xëy nga tàqalikoog moom mhm. nee na jëfal lu la neex waaye bis dina xëy ñu àtte la ci sa jëf kon wax dëgg yàlla loolu mooy lépp. dëgg la kon yàlla nañu yàlla dimbali ba suñu yaay ji léppam yomb. amiin euh, waaj bi ñu koy waajee yóbbu yàlla yàlla yombal léppam. yàlla yàlla yombam léppam mu ngi waaj a dem fu doy waar la. Mm-hmm. muy bàmmeel. Mm-hmm. foofu mooy fi nga xamante ni euh, Ousmane Ibn Affan bokk na ci ñi nga xam ni wóor na ko ne àjjana la jëm. Mm-hmm. maa masaana tiim ay masaana dugg baqiya day jooy ba dañ koy lëng. muñ ah. ko laajee mu ne ndax dama daan dégg sama soppe bi di wax ni alxabru awwalu a ci mooy bàmmeel nee na moo tax mu tiit ko maam Cheikh El Hadj bokk na ci ñaan gi muy ñaan allahuma annis wahdatahu warham xurbatahu yàlla ko dugg ci bàmmeel yàlla na nga ko wéttali ci wéetam waaye yàlla na nga ko yërëm ci tumuranki ka mu doon def kon loolu jar na bàyyi xel sant leen gërëm leen comme ni ko sëñ Cheikh waxee bu ñu leen di sant defuñu ko nag waxi wolof wolof moom day tàmm da lebal na ma teraanga naa ko fay teraanga waaye ñii dégg xam nañu lan mooy émission taal ngol ngol ci waaye sëñ Cheikh yaram tegginam ak présentation li muy def. ba ñëpp léegi Sénégal koo wax. miin na. comme chaque soir et bonsoir. bonsoir man bu ko waxul sax ma envoyé ko message. wallaay wallaay ni sama affaire bi waxoo. waaw mu ne à demi soir comme chaque soir Sénégal gépp defe naa ne maa a moom mi gën a fan man mooy sama journaliste. kon nag ñu jaal parce que famille bi yëpp. waaw ñu ngi ñu ngi tàggoo fii rek parce que xam naa xaw na noo déborder sax. Mm-hmm. waaye nag euh, wax dëgg yàlla ñoo ngi ñaan daal sunu soxna si fi jóge euh, gis nga Cheikh génne nañu photo ma nga ne moo nekk ne yal na ne mu leere rek yal na léppam leer yal na dajeek yërmande sunu borom tabaraka wa taala taalibe Cheikh it euh, yal na dajeek Cheikh Ahmed Tijane Chérif radiallahu taala anhu ñi fi bàyyi it nañu xam ne yàlla moom ni ko oustaz waxee rek jëlul lu mu àbb kenn mm. Mm. si yëfam la jël mm-hmm. te la fa des dana ko jël si yàlla na yeex ndax oustaz jàngal nañu ay bayit yooyu man téye naa ko mm-hmm. ndax nit bu la jaale see sax buy dem da ko naan Euh, yàlla na fi gëj yàlla na fi gëj nag bokkut ak yàlla yàlla boo ko gisati yàlla na fi gëj mooy yaa ngi xaar keneen dee eh, ak yàlla buñ la ko gaaw a fayit xam nga ni kon loolu xam-xam la te yow it maa ngi lay ñaanal bu baax parce que xam nga Babacar Diagne bi nekk directeur u CNRA dañ koo laaj ci émission religion et célébrité mu gërëm la gërëm ma te Babacar Diagne xam naa ko ëpp na trente cinq ans. parce que man caaroy géej laa laa laa xamee woon euh, Babacar jaañ ndax fa la dëkk. mais xam nga kilifa gu toll noonu su suñu koy laaj mu tudd la. tudd ma lu rëy rëy ci man la. Mm-hmm. moom it euh, wax dëgg yàlla ñoo ngi koy ñaanal. Mm-hmm. di jàll Alaaji Njaay Euh, goroom ndax kooko ko jural soxna di jaal ñoom abdul ñoom euh, sala ñoom jeeba ñoom ak ahmed mouhamed mouhamed sama xarit nga xam ne dama ko gëj a gis sax te moom mooy suma xarit wax dëgg yàlla mhm. eh, ñoom ñëpp maa ngi leen koy jaal di leen xamal ni daal suñu borom moom euh, dëgg dëgg li mu leen teg tey jii bari na ñum ko teg te tegoon na ko ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Euh, soxna si taalibe Cheikh la euh, euh, ka Cheikh dem na ñi ko représenté ak ñoom Cheikh Umar yu Taal ak ñoom Seydi Hadji ñu baax ñëpp dem nañu. Mhm. Mhm. kon suuf moom yàgg naa jël nit ku baax. waaye nag ba fi lu baax it am na solo kon yal na yàlla teg loxoom. ci njaboot gi eh, te sàmm leen ñu ngi leen koy jaal bu baax a baax ma fàttali ni di h incha allahu ci juma Cheikh Umar yu Taal. fa koy euh, jullee mm-hmm. yóbbu ko nag dañ ko sëg ya ca yoof yàlla na suuf soosu woyof ci kawam yàlla tabal ko àjjana asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fi amaanillah jërë ngeen jëf ba suba incha allah